bul fàtte ne y' a deux phases pour la vie de Pastef du président Ousmane Sonko sur le plan politique. Mm-hmm. de 2014 ba 2021. Mm-hmm. il a posé un débat politique un débat économique un débat boo xam ne mooy war a porter le développement du Sénégal. Mm-hmm. c' est ce débat et ce discours là qui a fait mu am une adhésion massive bu fekkoon ni débat bi posé wu ko woon du am Sénégalais yu mu jaral seen bakkan pour ñëw accompagner ko. et et que ce débat là en face y' avait pas de répondant sur des questions économiques y' avait bi ñu demee ba xam ne amatuñ solution sur le débat technique sur les arguments économiques sur projet yu mën a porter Sénégal pour développer ko moo xam mbay mi la moo xam càmm gi la moo xam l'emploi des jeunes la moo xam perspective ak la position du Sénégal amuloon réponse boo xam ni convaincre na les Sénégalais mm-hmm. donc projet bi mu porté woon di ko argument yi mu doon joxee ànd ko ay cadre moo gën a solide taxaw ñu ni maintenant qu'est-ce qu'il fa faire puisque ñoo yore pouvoir il faut l'arrêter il faut l'emprisonner il faut le parti il faut empêcher que mu nekk candidat même bu defee recours CEDEAO effectivement bi Pastef def recours CEDEAO xam nga ñaata ñaata réew a desoon desoon CEDEAO ñoo fa nekkoon ñoo fa nekkati woon mooy pays yi nga xam ne ay Côte d'Ivoire la Sénégal presque cinq six tout le reste dañu génnoon CEDEAO donc ña fa nekkoon question de question de benn groupe la woon boo xam ne moo amoon ay intérêt ñuy défendre à leur niveau mais du question justice parce que bu doon justice ba ko interdire moo ko rétabliraat le problème ne se situe pas à ce niveau là li ma jàpp. mooy dafa am moment de résistance boo xam ne boo ca tolloo dootu question de droit parce que boo nekku ci état de droit d' abord munoo am les mêmes nekk ci état de droit université bi ngay bi muy wax mais li am université Sénégal mosul am fenn ci àdduna bi est ce que xam nga ni su Bassirou Diomaye fay nekkutoon président de la République presque plus d' trentaine d' étudiants dañu leen ci système bi sans benn ni conseil de discipline ni benn motif. ah comment il suffit seulement que nga dénoncé ni étudiant bi Pastef la bokk nga ne ku dénoncé ko ñu yóbbu ko faculté ñu retiré ko ci. ma j'ai dama lay wax xam nga man raconte ma lay lu amul daf ci bëri ñoo xam ni su may su may jeune lañ seen grand la dama leen doon encadré ñu ci bëri ils habitent entre Bignona et Ziguinchor bi élection présidentielle yi jàllee bi ñu ñibbisee dem di inscrire ñu dem ñu leen nekkul ci fichier bi ils ont été retirés du système de l'université sans pour autant ñoom yëg ko. sans tegul benn motif dañ jàpp ni ñoom rek c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire que y pas une justice xamul amoon tey yow bokk APR rek xamal benn ministre wala ku la neex nga woo ko ni ko diw mii dafa bokk ci nangam mu woo ñu jàpp la. moi un ami m'a sauvé. j'ai un ami qui m'a sauvé parce que le ministre de l'intérieur l'a appelé à l'époque parce que bu ñu waroon jàpp ko dëkk fenn ci benn zone am na responsable bu ñu woo laaj ko diw loo xam ci moom le ministre l'a appelé parce qu'il voulait parce que am na ko ma dénoncé que ni tra yi dama leen doon encadré mu ni ko non et puis il m'a appelé il m'a expliqué et c'était valable pour beaucoup d'autres personnes nekkatul woon ci loo xam ne c'est les juges ñooy décider ku ñu arrêté ku ñu arrêté n'importe qui pouvait arrêter n'importe qui et ça c'était extraordinaire mosul am ci benn réew li li li li li Sénégal dund période bi masu ko dund te ñaanuma yàlla mu dund ko dans l'avenir est-ce que nekkul loolu ngeen doon bañ fi ñu fi ñu fi ñu jëm fi ñu jëm moom ngeen bëgg fa fa duñ ko andi amul benn acte dama la pose dama leen amul benn acte boo xam ni régime président Diomaye dina ko posé bu nit koo xam ni droit la ñor justice moo la ñor nga man ko incriminer boo xam ni ci moom la dépendre du interférer ci pouvoir judiciaire mais dina fexe ba réforme bi muy teg. justice bi am pouvoir yoo xam ni. li ñu war doxal dañ ko doxal xam nga lu ci lu ñu nekk lu ñu intéressé ci li ñu liggéey mooy lu ñu Sénégal yi di xaar naka la ñuy def ba patrimoine bi Sénégal am te ñoom ñu jëloon ko seede ko ay privé te amuñ ci droit ñu récupérer patrimoine boobu ba état li muy fay ci location ci ay batiment mu génn ko ci dugalaat ko ci budget état bi mu contribuer ci. naka la ñuy def ba entreprise yi nga xam ni. ñooy doon yor assainissement ñu amaleen ay milliards et des milliards fay ñu leen ko ni ñu def ba fay ko waa gerte gi ñu fay leen ko ba hivernage buy jot ñoom ñu liggéey ci seen teyu bakkan parce que entreprise bi nga amal xaalis fayoo ko 2020 fayoo ko 21 fayoo ko 22 fayoo ko mais soo ko joxee mission amul obli yow amoo sax pression ci moom li mu man rek lay def lu ko neex lay def parce que da ko yoreel loo defu donc mun a agir fi ñu nekk fi Sénégal toll le BRT le TER lu baax ak BRT lu baax la de moi parce que ça répond à un besoin de mobilité. Dakar est la cap c'est très bien. Je suis d'accord d'accord. Mm-hmm. La réalisation du projet, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord, à terminer. Ça veut dire terminer, Le problème c'est pas à ce niveau. Mm-hmm. Problème bi mooy est-ce que terre bi lu ñu ko amee moom la ñu ko war Est-ce que li mu Sénégal la war a Sénégal. Est-ce que BRT bi li ñu ko amee la ñu ko waroon est-ce qu'on ne pouvait pas avoir avec la moitié de li ñu ci investir c'est à ce niveau-là qu'il faut poser le débat mmh. est-ce que autopont yi ñu defar c'est très bien prix yi ñu ko defee on ne pouvait pas avoir moins que ça est-ce que ay entreprises sénégalaises mënuñu ko woon defar au lieu ñu joxe français ce sont ces questions-là qu'il faut se poser est-ce que aujourd'hui Sénégal nga xam ne mooy vingt-cinquième pays le plus pauvre du monde ànd na ak réew moo xam ni da nga bëgg ni bilan bu positif la est-ce que tey mbay mi am na lu ci dox Sénégal est-ce que Sénégal ngi produire ah. la réponse est non est-ce que am nañ un tissu industriel la réponse est non concrètement ay tali c'est bien moi je suis libéral hein mm-hmm. moi j'ai côtoyé Abdoulaye que nit ñi investir ci investir ci dëkk bi defar ay tali defar ay c'est bien mais le fondement de l'économie bu mu nekk c'est d'abord le secteur primaire le secteur mm-hmm. benn investissement réel boo xam def ngeen ci bu am impact aujourd'hui d'accord deux millions de tonnes la ñuy importé par an mooy mooy moo nekk la consommation du Sénégal un million deux cent yi dañ koy importé lan la ñu kon presque huit cent mille ton nga am vallée du fleuve Sénégal. d'accord am moyen yoo ci def. am ñu ko bëgg mën ko def pourquoi mënu ko réussir. bassin arachide man Bambey la ceytu laa dëkk suñ zone boobu yépp dañuy bay daañ bay gerte la ñu daan bay à l'époque nga xam ni temps socialiste ñoo fi nekkoon le tiers mënatuñ ko bay te nit ñi dañu yokk te suuf saa nga fa pourquoi d'accord industrie yi ñu am muy Sonacos mhm. au lieu que mu produire day dem di importer pour transformer. d'accord te la matière première doit être là. merci beaucoup mais conditions yooyu yëpp boo ko réunirul. comment tu peux porter le développement du Sénégal. moo tax le projet les autoroutes de l'eau uh-huh. bi nga xam la premier ministre. wax nañ ko ak sëñ Mountakha pour que ndox mi mën a jóge Lac de Guiers yóbbu ko Touba zone bi muy traversé bépp ndox bi jóge fa ñëw fa ñu mën di bay di dundal su pare woon suñ ko defee ba mu pare uh-huh. fii ak un an deux ans sénégalais vont sentir que non seulement ñu ñu fal ce sont ñu nangoo liggéey lañ et que dañ Sénégal dootuñu ko xool ci bëtu un pays en développement. d'accord l'émergence du ay théories c'est des pratiques. et c'est sur ça que nous allons travailler. et sur ça que nous allons faire pour avoir des résultats très positifs.